bari na ci réew mi bari na ci réew mi ndax li ñu jëm muy élection présidentielle yi dafa am solo ci réew mi dafa am solo ci dundu réew mi loolu moo tax élection présidentielle kenn mënu ko caaxaan ci loolu nag ma bëggoon wax ne ñu dee rafetlu nañu décision bi nga xam ne nii moom la conseil constitutionnel jël mooy décision bi nga xam ne nii dafa delloowaat Sénégal ci état de droit dafa dellowaat Sénégal ci état démocratique dafa du Sénégal ci état respecter la constitution lool loolu décision du conseil constitutionnel jël ñu rafetlu ko damay Je suis man premier candidat bi déposer recours au conseil constitutionnel pour contester la décision du président de la République abrogeant la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. man maa jëkk daw dem conseil constitutionnel contesté Je kon nag tey jii ba ma conseil constitutionnel est dëgg jox candidat yep jox ko Sénégal Je Doudou rafet la le ba ca des ñu ne élection présidentielle bi dafa am solo ci dundu réew mi ñu jàpp aussi ne président de la République bi ñu war fal est war a nekk ne dara. Madame un président irréprochable parce que le Sénégal il lañ que le Sénégal loolu le mérite loolu moo si nous avons des conditions yi Nous ne ni de ñu a président dafa am de ak ñaar yu ci bokk gens xam ne am solo am solo ma qui fan passé dégg nañu ñu Gakou dafa nationalité polonaise ba wax loolu bu amoon dinaa jomba taxaw ci kanamu Sénégalais naa naan leen dama bëgg a jiite réew mi ndaxte xam naa ne pour jiite réew mi da nga war a am benn nationalité mooy nationalité sénégalaise man nag mësuma am benn nationalité bu dul nationalité sénégalaise aw ma ko démb aw ma ko tey te soxlawu ma ko parce que sama nationalité sénégalaise doy na ma pour ma jëriñ sama réew te loolu moo tax may def politique kon nag maa mbokk yi ne man aw ma beneen nationalité aw ma ko Pologne aw ma ko beneen dëkk waaye nag comme dafa am ñuy wër di laaj ndax man polone la ba dem ba Pologne di ko laaj autorité polonaise yi loolu moo tax ba nit ma am sañ-sañu ne dinaa laaj bi nga xam ne nii ñoom laa seqee mbir mi ku ci nekk wax li ma wax wala nga def li ma wax def wala nga jëf li ma jëf maanaam candidat bu nekk war na wax ne outre la fait que da nga def déclaration sur l'honneur war nga wax ne nekkuloo benn nationalité bu dul sénégal yi waaye ba ca des war ñu yem foofu xam ngeen ne charte réew mi ci charte code électoral daf nañu ne bépp candidat da nga war a waat ne yow kat yaa ngi fay impôt waaye nag boo bëggee yore réew te fayoo impôt waroo yore réew parce que ku mën a ku bëggee yore réew da nga war a fay impôt te loolu lu am solo la lu kenn mënul fooye loolu loolu moo tax may man Malick Gakou man ne ne man day nekk naa en règle avec impôt suñu dëkk parce que impôt dafa am solo parce que impôt nak boy réew mi loolu motax ma wax le ne man Malick Gakou man nek na en conformité avec impôt dëkk bi ndaxte kat jomb naa di dem ci élection présidentielle ne dama waat ne am naa quitus fiscal awmako aw te sama quitus fiscal war n'a leen ko léegi mi ngi nii ñëpp xam nañ ne kon man bu dee conditionnalité yi nga xam ni nii mooy tax ñu nan

ba élection yi di ñëw ñu tànn président ci anam bi mën rafete te président bi dafa war nekk set wecc ku bëgg Sénégal ku war a mën a liggéey Sénégal ci loolu moo tax lii conseil constitutionnel wax Sénégal yëpp d' accord ci ñun candidat yi ñu d' accord ci président Macky Sall ne d' accord na ci ñu ngi jël acte ci li nga xam ne ni d' accord na ci nee na moom dina def li conseil constitutionnel wax ci loolu nag moo tax ñun ñu proposé coalition Gakou 2024 les élections bi tenir le dimanche 3 mars 2020 nous nous proposons coalition ñun ñu coalition 2024 Les élections bi tenir le dimanche 3 mars 2024 premier tour deuxième tour oui, le dimanche 31 mars parce que incontestablement s'il y a un deuxième tour il faut faire ko pour que plus tard avant la fin du mandat du président les deux

des centaines et des centaines de prisonniers politiques prisonniers sont ñu Ils dañu mën lu dul nous ba wax ne la courage Nous saluons salué détermination ñu ngi feddale colère. un ak ñoom ndaxte ñoom kasa boobu li leen fa dugal mooy Nous Sénégal mooy jëmmal Sénégal Nous ngi encouragé gouvernement bi mu continuer ci libérer Nitides, libérer aussi le président Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye parce que nous avons une place de prison bi place de politique pour que Sénégal une élection démocratique transparente et inclusive c'est ce que nous wax dialogue dialogue

ni de passation de service entre le président Macky Sall et le nouveau président élu El Hadji C'est bon Allez, je vous remercie. Merci.